réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. Les Patriotes TV. oto lu mu fees fees yëbbante ab nuyoo xañ na ca xibaar bi nga xamante ni ñu ngi ko jëlee ci Dakar Buzz faw ñu yeggee leen ko donte guddi na ki nga xamante ni moo di préfet bu ndagaaru Ndiaye di wuyoo ci suruf Sirif Mohamed Bolande Ndiaye moom moomee nag daal nay tere li nga xamante ni moo di doxum ñaxtu bi xamante ni naroon nañ ko amal ni ki suba ak jàmm di doxum ñaxtu boo xamante nii ñu ngi ko tuddoon mars silasel doxum ñaxtu boobu nag waroon na commencé fi nga xamante ni moo di doon point Seydou jëm jëmb fi nga xamante nii moo di école supérieure waaye ki nga xamante ni moo di préfet bu Dakar nag daal dinay tere li nga xamante ni moo di mars boobe nee na nag lam say boñ daal mooy li ñuy woowee trouble ak l'ordre public waaye tamit xëñ ñi li nga xamante ni moo di seen seen dem ak seen dëkk wala sax yàqal leen li nga xamante ni moo di seen i liggéeyukaay loole nag moo tax moom mii nag di préfet bu Ndakaaru daal di tere li nga xamante ni moo di marché bi nga xamante ni waa kuréel gi nga xamante ni ñoo di coalition Jumaay 2024 naroon nañ ko amal niki suba ak jàmm yemoog talaata fukki fan ak ñett ci weeru février 2024.